soo gisee ma woo fii nga toog dama la bëgg xamal ne sa soi-disant sœur bi nga demoon seeti du sa nawle bëgguma sax nga di leen fréquenter. Chantal arrête ndax eh laisse-moi terminer su may waxati bu ma dagg. naa nag keroog partenaire bi jóge woon États-Unis ñëw wax bureau DG génn di la xool way bëgg a daanu ci escalier yow sama produit nga sama alal maa la moom. waaw oui. demal nga jël colis bi ñu ci accueil. Abel tes désirs sont des naa la laaj benn est-ce que seen famille par exemple sa yaay mosu wax walla sa sa sa maam amu leen ay problème ay rab wala je jegewuñu ko sax ñun papa li muy def moo ko tey reewande doo nga ko dugg. merci dama lay jox conseil nag sa yaay mi ngi ci oto bi mais dafa am cardiaque wax na ma jàngoro yaa ko mën a dimbali nag nga accepté ko.